d'accord ñu jeexalee la sous-région d'accord la sous-région ah. euh, ak le climat actuel dans certains pays yoo xam ne ñoo ñoo ñu wër les coups d'état mel ne les militaires dañoo commencé at am goût di jël le pouvoir euh, non pas par les urnes mais par les euh, armes des voies yoo xam ne ñu bëri ñu ngi koy dénoncer dans des pays comme le Mali euh, Tchad euh, Burkina Guinée mu doon loo xam ne aussi c'est c'est c'est inquiétant waaw loolu moom wax dëgg yàlla ñun dañ koy dañ koy déplorer parce que euh, seul le pouvoir seul le peuple détient mm. le pouvoir mm. ñoom ñoo am la légitimité ñoom ñoo war a fale donc euh, c'est vraiment déplorable gars yi militaire militaire seen place ci caserne yi la nekk mm-hmm. wax dëgg yàlla seen place du pour ñëw foqati lu nga xam ne loolu la ñuy wax légitimité populaire mm-hmm. loolu c'est pas du tout normal loolu amul kenn ku nga xam ne wax dëgg yàlla am nga tuuti sentiment de démocratie nga koy nga koy accepté dëgg yàlla ñun ñu ngi koy déplorer avec euh, notre dernière euh, énergie. le Sénégal n'est pas Sénégal ne peut pas être menacé il faut pas oublier que le Sénégal vraiment du le Mali du le Burkina du la du yeneen mm-hmm. réew yi. Mm-hmm. loolu mosul xew Sénégal te au Sénégal yow xam nga ne wax dëgg yàlla dañoo am force de défense et de sécurité yoo xam ne c'est des républicains. Mm-hmm. donc buñ ne euh, lu xew Mali xew na fii xew na fii saana n'a rien à Sénégal wax dëgg yàlla ñun on nous Sénégal n'est pas du tout menacé. Ah, la CEDEAO euh, euh, dans ces pays militairement wala dañu war privilégier la la médiation. bon euh, xam nga son excellence le la république Macky Sall moom mooy njiitum réew mi te wax dëgg yàlla voie autorisée wu Sénégal. Mm espace CEDEAO donc dem na fa jëm jël neen fa. ndogal man ndogal boobu si loolu laay tënku. Mhm. ndax moom mooy